du F24 Mamadou Mbodj, le procureur Alioune Ndao et puis aussi euh, maître Tine bi nga xamante ni am na ay kaddu yu am solo yu ñu amal ci euh, li nga xamante ni mu ngi xew ci réew mi te teguwul ci yoon ndax seen xam-xam dafa màcc ci loolu seen parcours ak seen vécu tax na ñoom en tant que membre du F24 ñu jàpp ni euh, am na solo pour que tey ñoom ñu ñëw mu ay kaddu yu ñu jibal euh, pour que sénégalais yi ñu jot man li may tàmbalee gannaaw bi ma bi ma bi ma ñaanalee euh, malheureusement ay ndaw Sénégal yi nga xamante ni ñàkk nañu seeni bakkan ci fan yi ñu jóge muy euh, policier bi nga xamante ni ñàkk na bakkanam victime la ak ndaw bi nga xamante ni ñàkk na bàkkan kër Mbay Fall ak keneen ka nga xamante ni boom nañ ko ca Ziguinchor euh, di ñaan yàlla yàlla àjjana euh, di di naan ñoom ñëpp ils sont des victimes du régime de Macky Sall leneen li mooy di masaw bépp sénégalais te yàlla xam na ni bëri na tey ay sénégalais yi nga xamante ni jëlee na jëlee nañ ci ay gaañu gaañu yu tar ay gaañu gaañu yu metti lool di leen masaw di masawu seen i famille ak seen i njaboot li may njëkkee mooy maître Tine ñëw na ci procédure yi nga xamante ni au plan institutionnel ak au plan juridique F24 au nom des forces vives de la nation dina ko amal au niveau national et international damay ñëw rek bamtuwaat li nga xamante moom la euh, coordonnateur daanele monsieur Mamadou Mbodj mooy gannaaw bi ñu amalee manifestation bu am solo ci vendredi bi ñu jóge ay milliers et des milliers de sénégalais ñu ñëw place de la nation wuyu si euh, appelu force vive de la nation gannaaw bu ñu leen ci gërëmee di leen sant bu baax ci seen taxawaay dañu leen wax ci texte bi nga xamante ni doyen Mamadou Mbodj daaneel na ko sànq ni nañu waajal ñu waajal ndax fan yi di ñëw. dinañu lancer yeneen manifestation yi ni mel yu pacifique waaye ci bii yoon au-delà de Dakar un peu partout ci département yi ak ci diaspora sénégalaise pour que Macky Sall mu xam ni troisième mandat mënu fi amee c'est pas possible que Macky Sall mu xam ni peuple sénégalais du nangu artico à artifice politico juridique yi nga xamante ni mu ngi koy utiliser utiliser woon na ko déjà écarter ñaari candidat que tey jii nii mbëbëtam mooy utiliser waat ko pour écarter ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko loolu mënul nekk te du nekk peuple sénégalais dina ci am taxawaay bu am solo pour que mu bañ a jàll te du jàll. leneen li aussi mooy lépp lu jëm ci prisonniers yi nga xamante ni ñu ngi ci kaso yi les prisonniers politiques que ce soit les prisonniers d'opinion ak prisonniers yi nga xamante ni ci exercice su droit constitutionnel u marche pacifique jàpp nañ leen ñu ngi ci biir kaso yi boobu tey ñu ngi waxoon ci li jëm ci trois et quelques. tey jii nii ci chiffre yi ñu jot ci manifestation ñetti fan yi am na tey li ma jot li jëm ci ay au niveau de Dakar rek lu jëm ci ay soixante-dix arrestation arrestation yi nga xamante ni nit ñi gis nañu ay vidéo wu torture yi nga xamante ni am na ci yenn gendarmerie yi ak yenn commissariat yi maître Tine wax na ko am na taxawaay buñ ci am waaye bokk na ci aussi manifestation yi ñu jëm Dakar ak fépp que sénégalais yi ñu taxaw temm pour que yëf yi dàkk que lii mu arrêté leneen li may wax nag mooy ce dossier je suis très à l'aise pour wax ci parce que ca tàmbali bi gisoon ngeen en mars deux mille vingt et bi mu commencé jib sénégalais yëpp de façon légitime voilà sénégalais yëpp de façon légitime jàppoon nañ ni. bu amee sénégalaise doomu réew mi nga xamante dafa tuumal beneen doomu réew yoon la justice mu def ci liggéeyam waaye bi ñu gisee machine judiciaire bi bi mu tàmbalee ni mu àmbale woo di salfaañe ay droit wu citoyen sénégalais nit ñi dañu taxaw temm ne loolu du fi amee il faut que yëf yi mu jaar yoon ñu forcer bugg accélérer bugg accélérer sénégalais yi ñu taxaw temm loolu moo indi woon manifestation yi ngeen gis ay manifestation yu tar mu am ay sénégalais yuñ ci boom ci euh, ci ci lu lu toll ci quatorze sénégalais yi ci perdre yi ci ñàkk seen bakkan manifestation yi dem ba toll fi nga xamante ni peuple bi amoon na nu muy demee mu wéy ci loolu rek dinañu dugg ci li nga xamante ni ñaanaluñ ko réew mi yenn situation d'instabilité yi nga xamante ni am na ci yenn réew mu am ay kilifa diine yu ñëw mu am ay jéego yu ñu dox ba peuple sénégalais à travers mobilisation boobu mu taxaw ci ci ci ci vraiment worma gi ñu am ci kilifa diine gi nga xamante ni mooy euh, sëñ Mountakha Mbacké waaye gis ngeen Macky Sall respecté wul lenn ci ay engagement am amut lenn ndax arrêté wul dafa reculer dem gànnaayu jël ay nervi jël yenn ñi nga xamante ni ay jegeñaalem la ñu ñu feesal leen ci ay force de défense et de sécurité loolu moo indi yenn situation yi am. quand on parle d'un élément de gendarmerie bi nga xamante ni mu ngi doon manipuler arme mu li ci am mu am ci mais parce que y a tellement de sénégalais yi nga xamante ni parfois c'est des nervis qui opéraient aux côtés des forces de défense et de sécurité di def naka su noonu léegi dañ leen jël dugal leen ci biir ñuy def naka su noonu di continuer di wéyal pratique yi nga xamante ni ñoom lañ doon pratiquer loolu noonu moo ñëwaat dabaat ñu dabaat ñu jël Sénégal yenn yenn pàccu Sénégal yi day mel ni band de Gaza c'est-à-dire armee wu euh, Israël ni muy ñëwee assiégé di nord palestinien yi boo demee ci yenn zone yu mel ni ay euh, nu mu tuddati Ngor ak yeneen zone Dakar yëpp dañ ko kii ak ay forces de défense et de sécurité sénégalais yi xamuñ nuñ def donc ci loolu la ñu toll ñu yëkkatiwaat mbir yi et le principal concerné Ousmane Sonko je pense que mu ngi ci texte bi mais il a fait une adresse il a fait une déclaration pour wax ni. moom sonn na ci justice bi nga xamante ni saa yu ko convoqué ci yoon bi lu ne lay lu ne lay kii bi ci mujj hôpital la mujjee mu ne du wuyu ji justice bi nga xamante ni bu ko convoqué du garantir sécurité mais yaa xayt bu dee rek Macky Sall ak ñi mu àndal nguur gi jàmm rek lañ bugg ci réew mi mais dañuy teg ay garantie yi nga xamante ni day doon des garanties sur sa sécurité mais defuñu ko li ñu def mooy procureur Aliou Ndao li mu wax ak maître Tine li mu wax mooy en en flagrante violation des lois et des règlements du pays ñu dem au niveau de Ziguinchor gis ngeen c'est un champ de guerre loolu lañ ne ni il faut que mu tàkk il que mu taxaw di ci yokk nag gis nañu ni et loolu c'est des faits graves au-delà de la torture tey dañuy gis ay jegeñaale wu Macky Sall nekk ci réseaux sociaux yi diw boppam neexuma rek ñu signalé ko ne kii lii ak lii la def ñu dem ñu jàpp ko tey ji nii am na benn image bu nekk di circuler ce Ernest Dieng bi nga xamante ni tey réseaux sociaux bi yëpp à l'unanimité ay ay témoignages yu am solo yu positive la ñu am ci ci ci moom kenn xamut fu mu nekk parce que rek benn jege ñaalew nguur gi tagge na ko ne ni moom moo def li yëg li yëg li tey disparaitre na kenn gisu ko kenn xamut fu mu nekk ku mel ni du njaay bi nga xamante ni moom mooy euh, responsable Bambey TV dik dafa dem cueillir ko juste parce que dafa nekk ci réseaux sociaux yor fa benn page di diffuser ay information parce que justement lu bëri ci média classique yi malheureusement dañu déserter seen rôle dafa am benn spiralu silence bi nga xamante ni dañu ko bëgg installé sur ce qui se passe à Ziguinchor et ailleurs dans le pays bu dul woon tey nu mu tuddati le journalisme citoyen bu dul woon les web TV yi ngeen doon ñi ci ëpp ci yenn mais kenn du xam ni mu demee et on nous a dit am na benn papier wu RFI xaw ma pour am yenn information ils sont allés chercher des infos ci ay médias yi nga xamante ni Burkina Faso la ñu ko vous pensez que loolu yoon la et aujourd'hui on comme Modou Ndiaye muy relayer relayer ce qui se passe on va aller le chercher à Bambey ñu indi ko ici au niveau de la division des investigations criminelles ndey ak ndey ndey bati ñaa soxna soosu su jàmbaare ah Macky Sall ñaa gis naa benn postam bi mu def jàmbaare ne bu ngeen di lire sama post bi dina fekk peut-être ñu jàpp ma mais nañu xam ni info yi ma doon joxe nit ñi dinañu wëyal di éclairer sénégalais yi sur ce qui se passe dans ce pays et qui est anormal et je ne parle même pas de journalistes yi nga xamante ni léegi on voit dans ce pays une journaliste qui travaille des populations yu ñuy persécuter à Ngor mu koy joxe à en live parce que yenn médias yu bëri dañu déserté de leur rôle ñu bëgg a installer cette spirale du silence là ñu koy woo en direct di ko menacer loolu fan mi mi mi mi où est-ce syndrome Hissène Habré wax na ko yàlla a le syndrome Hissène Habré qui en train de guetter le président Macky Sall par toutes les voies possible sénégalais yi wax nañ ko jox ko une chance de pouvoir sortir par la grande porte mais malheureusement dafa mel ni dafa dëddu cette grande porte la et aujourd'hui yàlla y a le syndrome Hissène Habré moo koy gëte parce que kaaw torture yi amoon au niveau du Tchad yu ci bëri yooyu la organisme de défense des droits de l'homme yu documenté ba ñu topp Hissène Habré ci ay ataki at gis ngeen fi mu mujje mu am benn tribunal spécial bu ko daan mu nekk fii ci Dakar ba fi mu mujj gis ngeen ko loolu moo nekk di guetter le président Macky Sall malheureusement parce que par A ou partir au lendemain des de février 24 il ne sera plus président de ce pays et tous ceux ci régime bi wax nañ le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice qui sont responsables au premier chef ci li am il faut loolu c'est première chose waaye képp nga xamante ni yow da nga jàpp ni Euh, ñu ngi la tabb ci parce que commissaire de police nga wala fan nga ak xawma lan tu te permets pour ta promotion personnelle pour sa carrière personnelle ngay jël ay sénégalais di leen torturer nga foog nii loolu France lay doon daal di xët mais da ngay nax sa bopp da ngay nax sa bopp parce que sa nguur laa nguur gu éphémère la day dem en février prochain ku ci nekk responsabilité bi nga am ci lii nii yëpp di xew billaahi du ma ñaan du bon du ma waat di nga di nga ko layoog justice su Sénégal le moment venu excusez-moi je parle avec le cœur parce que l'heure est grave et il faut que les gens arrêtent de se taire un message aussi à kilifa diine yi on parle de régulateurs sociaux un message parce que suñu kilifa sëñ Muntaxa Basiru moom moo ñu ñaanoon en mars ñaan peuple sénégalais pour que mu arrêter les manifestations ñu dàqal manifestation yi sans condition presque à part quelques Macky Sall mu jël ay engagement yu mu respecté wul le seul engagement qu'il a respecté c'est les surarmer nos forces de défense et de sécurité pour que ñuy boom ay sénégalais donc je m'en arrête là je pense que euh, li li ma waroon wax yëpp wax na